réew bu ñu bindee ñu ci bëri dajaloo bind def pétition wala texte waa nguur gi am ñu yebal tamit ñu tontu euh, débat boobu noo ko gisee. yow gisaguñ la sax yow signé goo si benn de. Ah non man euh, proposé wuñ ma hmm. hmm. ah. <laughs> maa ngi signé de. Hmm. ngi signé te maa ngi bind. mu leer ànd ak ay bind mu leer ak photo kan moo rey xale yi balu fetal yaa ngi nii fan la jóge mhm. Sonko mosul yor xeer mosul yor pistolet mos ko si photo bu mu yor yor xeer hmm. benn pistolet lañ ne trouvé nañu si otoom euh, bi muy ñëw xaw ma jóge jóge kii ci kan la tiiree ma tiirewul kenn ban man yor naa fetal sama am na autorisation fetal hmm. mais damay xam ne bu ma tiiree ci nit dafa xam nu may def après maa koy faj. Hmm. <laughs> ah donc yor fetal bi moom un moment depuis 2011 ku képp kuy circuler wax nañ la utal bari la yor mais. Mm-hmm. donc euh, bu ñu demee débat bi moom defe naa léegi xale yi ñoo ko yor. Mm-hmm. Euh, jéem euh, xale mag yi ñu ngi leen doon jéem a jàppale. Mm-hmm. am nañu référence ñu ngi avancé. donc dans un pays nag bu contestation amul. taataal ay ay bagages yàq bagage du tey la commencé. yàq yi ñuy gis nii. waaw mais yëpp loolu mooy fippu xam ngeen fippu. Mm-hmm. ngay fippu récemment rek Fass Boy def nañ ko. Mm-hmm. Fass Boy Sonko mu ko fa. non non Fass bi seen doom yi deewee ci géej gi nii kenn intervenir ñu signalé ko depuis bul yàgg ñoo may radar yoo xam ne sur cent kilomètres man nañu xam fi nga nekk. ah. boo yëgee ñu desaare foofu yëpp nii léegi am na ko xam ne yaa ngi fi. koo xam ne maa ngi toog yow ci benn salle la nekk mu ngi koy gis actuellement équipement bii fa Frontex def. ah Frontex bu ko neexule woon kenn du dugg ci bateau de dem Espagne. kon Frontex teg na jumtukaay yooyu ci ci kii ci géej Espagne mooy def annonce ñëw leen sama c'est la période des récoltes waa Saint-Louis dañu daan dem campagne ñëwaat parce que c'est pas l'Espagne même qu'on si on part ici mhm. boo jógee Saint-Louis ngay def nga ak nga ñëw Saint-Louis dañu daan dem def campagne ñëwaat jël seen xaalis investir ko ci feneen. Mhm. donc tey face booy face booy bu ñu bu ñu taalee dëkk ba. loolu lan la Sonko lañ ko taal. non non waa Ngor bi ñuy xëccoo école de Ngor bi di ñu leen di door ay fetal Sonko fekkee na ko donc euh, et puis léegi nag en xaw ma de 68 du ñuy taal euh, le centre culturel français. hein est-ce que Sonko nga fa woon Sonko nekk fa woon. kon yow gëm gëmu appel la ci fitna ak yooyu yooyu gëmoo tudd de insurrection te du du leader bi moo koy def. Mhm. mosoo gis benn leader jiitu di yor ay xeer di dóor ñes rek la bëgg a gis gis en en M23 bi ñu jóg ñu yor xeer devant l'Assemblée nationale mais quelqu'un ku ñu gëm sa fauteuil ngay toog ñu dëla dóor ay xeer te doo wax dara su nit ñi dañ lay jógal mm-hmm. dañ lay jógal du yow yaay wax ne jóg leen mm-hmm. dañ lay jógal di la défendre ak jarul ngay wax mm-hmm. d'accord léegi nag lii xew léegi bu ñu defee ne c'est un calme nañu moytu nee nañu sénégalais buy yoot du saxat xam na ñu ne xeer mënul xeexaaxa fetal xeer mënul xeexaa fetal donc euh, mu ngi noonu. kon gëmoo ne calme la da nga yaakaar ne am na lu nekk ci suuf <laughs> comme li ma wax léegi ne euh, fay na waaye ci suuf xal yaa ngi fa. xalundéef <laughs> xalundéef la voilà noonu lañ koy noo xam ne loo xam ne ñëpp koy waxandoo moom euh, vraiment dafa leer te ñoom dañuy def ay sondage ba mu leer leen. te leer na leen ne kii dañ ko bëgg a faagaagal rek pour mu bañ a présenté wu la 2024 man li ma gëm moom prison dem palais gëm naa ko te mas na am ci mas am ci àddina bi. <laughs> fu gën a naqari fii <laughs> fu gën a naqari fii am na fa. da nga gëm ne docteur. Afrique du euh, Sud bu Mandela jógee prison ci ay raciste euh, criminels yu daan rey ay nit ñu ñuul nangu ku ñuul nekk seen président. Mm-hmm. te amul fu ñu la jëlee fudul ci euh, prison. kii itam bu ñu ne lay quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais. Mm-hmm. sont avec lui. Mm-hmm. donc euh, mu ngi noonu kooku moom euh, bu fekkee. Mhm. xaw ma loolu ndax intellectuel loola di ko war man dinaa ko wax partout ñu defal ma lu leen neex. Mhm. mais fu mu mën a ko fu ma ko mën a waxee dinaa ko waxtaane mhm. fu mu mën a dimbalee Sonko dinaa ko dinaa ko dimbale. fu ñu mën a preuve nag ne ma que terroriste mas na jël fetal de placer benn bombe fenn. Euh, ma ne Sonko li ngay def baaxul loolu loolu mooy intellectuel da ngay def féete ñaari côté da ngay féete ñaari côté docteur tey indiwoo tey indiwoo kii bi de brasserie bi ñëwul <laughs> benn kii moo ko jëlee ci man hmm? benn bàjjenu gox ah da koo nangu bàjjenu gox man ma maa la maa la ëpp ay nit ah moo ko nangu moom tamit daf koo bëgg a takk bàjjenu gox moo ko nangu ci man mais docteur jamono joo xam ne ñii dañoo ragal a takk bracelet yi yéen ngeen di takk bracelet mais justement c'est ça c'est ça xaw ma intellectuel ngeen ko wax wala wala liberté de de intellectuel loolu mooy différence am mhm. mooy euh, dëgg war na ko jaral yëpp parce que xam nga définition bi nga jox fàtte nga laa li la l'honnêteté intellectuelle. oui c'est ça. ça aussi ça définit tu vraiment euh, l'intellectuel. honnêteté intellectuelle boo ko amulee. peut-être mënoo ko wax en public mais dëkk bi nag nee na ñu bari ñuy wax de. Mhm. ñu bari ñu ngi wax. c'est soit dañu leen déglu man am naa ay xarit ci euh, Tivaouane am naa ay xarit Touba gis nga gis nga mhm. demande bi ñu ma def. Mhm. pour que ñu ñëw fekkee. Euh, Touba bi gis nga ko. Mhm. Ah, ah, envoyé naa la copie bi. mais ñoom danañ dañu wax wax ba sonn dernier exemple jox ngeen gis ngeen ko ah ku ne yóbbante leen kii. Mhm. Euh, ku mu tàndarma. Mhm. tàndarma di dugg. Ah, xam naa ne samay morom médecin yi moom ma tàndarma di dugg. si ko ku nekk hypoglycémie. moom day baax ci yow. donc mu ngi noonu donc. Euh, ñëpp ngi wax ñëpp a ngi wax am nañ suñu morom yuy wax ñoo xam ne peut-être duñ ko wax ci télévision bi. duñ ko wax fii bon est-ce que am nañu seeni raison bon souvent argument économique yi la ñuy avancé mm-hmm. qu'est-ce que tu risques qu'est-ce que tu risques mais redressement systématique ko si te amuloon problème intellectuel mm-hmm. redressement fiscal fa xaalis bi jëm mm-hmm. ah, ci gouvernement bi lañ jëm ñu ci dëkk bi te duñu laal li lekk li ngay lekk li ngay lekk li ngay naan duñu ko laal ah. donc euh, bu fekkee dañ koy def par euh, par par parloo <laughs> man man it bon gëm man daal gëm naa ne Sénégal am na foo xam ne nag am na nit ñu fa nekk peut-être mën nga leen wax def leen lii ñu jéem ko def te defe naa exode de zèle grève de zèle bi ça na. Mm-hmm, mm-hmm. parce que bu Juan Branco mën a atterrir fii en Afrique. te balaa muy dugg ci avion xam nga balaa muy dugg ci avion dañuy recevoir message. Mm-hmm. dañuy message tey Moustapha Mbaye mu ngi nii dugg ci avion bi jëm jëm Espagne fi ngay fi ngay atterrir fi ngay jaar ci kawam sax. parce que dañuy calculer bu avion bi daanu la fa. dañuy calculer avion bi daanu nga jaar euh, fi nga jëmul sax Portugal waaw Portugal sax war nañu xam ne avion bi kan moo nekk ci. Mm-hmm. si demee muy avion bi war a daanu mm-hmm. ah, ñu xam ne Moustapha mbay mii dangereux ci pays bi euh, il se peut que mu ngi woon ci avion bi mm-hmm. bu ñu détourné avion war na nañu xam ne ci léegi fi ñu toll avec euh, les technologies de terrorisme bon man je suis pas d'accord que quelqu'un dee ci benn bus ñu envoyé ko bal. Mhm. mais terrorisme du. du ci benn du ci benn bés. ay caaxaan ay avion lay doon ay mhm. technologie yoo xam ne c'est plus sophistiqué. Mhm. te loolu gis nañ ko def naa ci internet bi bi ñu leen bloqué deux ou trois fois. Euh, est-ce que ñooñu sax ay sénégalais lañu. c'est que le, le débat est à un niveau parce que ñu mën a dem ñam ci logiciel u gouvernement Sénégal yi ba bloqué ko. ah man de bon xam nga attaque attaque seen cyber attaque ñooñu xam ngeen xam ngeen ça veut dire que à l'extérieur même ñoom opinion. sur le gouvernement sénégalais pour essayer de le mhm. euh, di ko won ne ne attention moomuloo dëkk bi moomuloo dëkk bi message message ne voilà Juan Branco mu ngi noonu un tout petit <laughs> ku dugg fii Sénégal en 48 heures ñu accusé le de terrorisme de xawma de co de coalition mhm. avec des xawma lan c'est bon te la les mêmes condamnations les mêmes accusations de Sonko nga dem tey def naa muy est-ce que s'il n'est pas sur la côte espagnole en train <laughs> de boire moom moom Juan Branco eh, Cheikh Ousmane yow dégguma loon ci affaire u kii euh, intellectuel voilà yow ma dégg laataa ñuy ci beneen sujet bi euh, xam nga